très bien dinaa ñëw ci loolu mais xam nga bi ñu jógee ci FSDBJ am na ko ñuy wax Aline Badara Cissé. yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. sama xarit la woon. sama xarit la woon maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na yàlla na yàlla na sedd guy nit ku sérieux la woon koo xam ne réew mi malheureusement jariñoo wuñ ko moom moomu njëkk a fekk ma àndulaay wax ma waxuma Macky Sall bi président Macky Sall boobu maa ngi soog a jóge Égypte juste ñëw ma ne ko man de. mënumaa ànd ak sax pouvoir li ma gëm mooy réew mi képp ku jóg pour soppi ko ñun dañoo war a jóg jàppale la Alioune Badara Cissé moo jàpp sama loxo boole ma ak président Macky Sall ma koy jàppale ci département Kébémer te li may wax nii ku ñu wax Ibrahima jàlloo coordinateur APR bi nekk Kébémer bu may dégg. c'était avant 2012 ou après 2012. parce que man maa ngi ñibbi si Sénégal 2011 li may wax nii la. d'accord 2011. ñu nekk ci xeex boobu nekk ci yaanamar M23 marche bu ñu mus a woote man bokk naa ci ña fay jiitu waaye ma ma ma opté woon tamit ci président Macky Sall parce que gisoon ni ndaw la mu ngi judd après indépendance ñu yaakaaroon ni bu ñëwee rupture bi mu ñu doon dikk ak bonne gouvernance bi mu ñu doon dikk dina ko def. kon yow sa yaakaar da ci tas. bu baax a baax a baax.